aca gaye commencé combat bi Cheikh Diakhao Yankou Diodio Yankou Diodio mo won gannaaw mooy ak ñëpp lu weex li Cheikh Diakhao mooy ak ñëpp lu ñuul li boole boole moo gën a combat yi moo xaw a ëpp yaram Yankou jël na tànk bi Yankou jël na tànk bi Yankou jël na tànk bi Cheikh Ndiaye wax na ko doom Yankou daan na ko Yankou daan na ko Yankou daan na ko